asalaamaaleykum wa rahmatullah ginnaaw bi ñu leen nuyoo di leen ziar mbokki jullit mbokki taalibe tijaar cher internet ñi ngi leen di dalal jàmm ci wala duniyaati la chaîne des grands moments mu fas yéene ànd ak ñun ci li nga xam ne moom mooy gàmm gi bërëb ban koy defee nag xam na ni ku tudd wala duniyaati xam ni liggéeyam ma nga nekk ca Medina Cheikh Tidiane Chérif ñu fas yéene fa nag amal programme gàmm fekk si fa ki nga xam ne moom mooy kan ki nga xam ne moom la ñëpp di xaar ki nga xam ne moom mooy l'universalité di Mawlaaye Seydi Mouhamed El Cheikh Imam al Mahdi al Muntazar ci loolu nag ñi ngi koy débuté li nga xam ne moom mooy guddi Mawlaaye Cheikh suñu paree ci loolu bu ñu xëyee suba ñu amal li nga xam ne moom mooy symposium wane li nga xam ne moom mooy conférence de presque bi nga xam ne média yëpp ñoo fay fas yéenee ànd ak Seydi Mouhamed El Cheikh mu am ci leeral yi nga xam ne ak gis-gis yi nga xam ne am na ko ci àdduna bii ñuy dund suñu paree ci loolu nag ñu def li nga xam ne moom mooy lancement Dajjal ku ne nag Dajjal sa xel dina dem ci ki nga xam ne moom mooy ki ka xeex di Mawlaay Seydi Mouhamed El Cheikh mu defoon ci nag waxtaan ñenn ñi nga xam ne ñoo ne ci biir xadara bi fas yéene cee def projection suñu paree ci loolu nag ñu jëm ci guddi gi nga xam ne moom mooy guddi Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam waaye bala ñuy dugg ci guddi gi dañuy njëkkee li nga xam ne moom mooy tapis rouge suñu paree ci loolu nag à partir de minuit ci la waxtaan bi di am ki nga xam ne moom mooy Mawlaay Seydi Mouhamed El Cheikh fas yéene koo waxtaane de minuit jusqu'à 5 heures du matin loo gis nag début boo gis am na fin tëj bi nag mooy lan fa tisbaar ku ne wasifa tisbaar xel yëpp dem ci histoire bi nga xam ne doxoon na ci diggante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci Mawlaay Cheikh Ahmad Tidiane ca désert ba à partir de 13h loolu nag moom la ki nga xam ne moom mooy l'imam de bien guidés ki nga xam ne moom mooy doo Mawlaay Cheikh Ahmad Tidiane Chérif fas yéene jëlaat loolu fàttali ko mbokk taalibe yi fas yéene ko amal nag suqaliwaat histoire bi nga xam ne moom moo doxoon comme nag lu ñuy wax naan listoire sa répète ci wasifa tisbaar suñu paree ci loolu nag mbokk yi ñu leen di wax ni nag foofu lañ koy tëjee soo leen bëggee nag yeneen leeral ak li nga xam ne moom la Mawlaay Seyd Mohamed El Cheikh fas yéenee waxtaane bum leen rëcc ci fan ci wala duniyaati restez connectés à la chaîne des grands moments Cheikh di ab gox bu Cheikh sanc fii ci saint mooy dalal saabu weeru gàmmu jotee ay taalibe yuy jóge fu nekk ci Sénégal ak ci diaspora bi ñëw pour màggal si guddi yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ci fukkeelu fanu gàmmu gi di yemoo ak guddi mawlaaya cheikh taalibe yi daje ca medina cheikh ak seen sang seydi mohamed el cheikh pour màggal guddi gu njëkk ci mawluud bi yaa di mën nañu xam tey lan mooy gàmm ndax gis nañu ni ñu bëri ñu ngi gàmm ñu bëri ñu ngi dem ci gàmm yi waaye ñu bëri itam ñu ngi jóge ci seen dëkk di dem di fekk ji seen sëriñ seen wasila di dem di màggali ji guddi ko tedd gi di euh, euh, yonent bi sallallahu alayhi wa tey jii mën nga ñu wax rek euh, ci benn parti bu ndaw lan mooy gàmm exactement. bu ñuy wax rek dañuy wax ni anniversaire la maanaam nit ki nga xam ni. Eh, yàlla dogal na mu dund at wala mu def li nga xam ne dellusi na ci at mu war a màggal loolu ngir delloo ko sant yàlla eh, gàmmu nag ci processus boobu la dellu ndax bu ñuy wax gàmmu yant yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa moo tax ñuy wax te bu ñu koy waxal tam yant yàlla Muhammad mooy màggal li nga xam ni mooy juddoom te juddo boobu tam fa tabaarkalla macha allah moom yonent bi moo ko njëkk a màggal boppam ndax boo xoolee ba ci biir eh, wax dëgg yàlla. Eh, daawoon nañu gis ni altine bu nekk moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daawoon na ko woor te bu ñu ko laajoon lu tax ngay woor bésu altine mu ni bés bi laa gane si àdduna eh, ñun ñiitam nga xam ne ñoo ñëw ci ginnaawam te bokk ñu moom ak moom jamono eh, dafay nekk ci ñun wareef comme moom mooy suñu royuwaay ñu mën ko màggal lu nu mel ndax bul fàtte ni yàllaa ñu sant nu lu mel ndax bu yàlla waxee ci alquranul karim Eh, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima loolu rek doy na sëkk ndax yàlla moo ni moom na mu jullee ci yont yàlla muhammad ak ay malaakam e na bëpp jullit jullee na moom na jullee noonu ci yont yàlla muhammad julli boobu nag delloo njukkal yonent bi la te delloo njëkkal yonent bi nag mooy màggal ko bés bi nga xam ni moom la ganisee ba leeral adduna bi nga xam ni ci la ñu nekk tey. Mm, mbokki wala dunya ci TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax tey nag ñu am gan bu spécial alxalifa Cheikh Ba. ci wàllum évolution bi nga xam ne am na ci màggalu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu gis ne sang bi depuis 2006 ba 2022 mu ngi célébrer mawlid bi fii nii ci Medina Cheikh léegi ñu bëgg nga wax ñu ci. évolution bi depuis 2006 ba tey ban ñàngat nga ñu ci mën a xamal ci durée boobu noonu yëpp. Mawlaaya Cheikh Seydi El Hadji Mouhamed El Cheikh Imam Al Mahdi Al Muntazar alayhi salaam euh, ñun yàlla dogalee ñu découvrir ko ci shahada euh, ba tey ànd si ñëw gàmmu si fii ci moom ba léegi mënatuñu taxawal dundal guddi yonante bi sallallahu alayhi wa sallam fenn fudul fii. ndax li ñu gis fii ak li ñu fiy yëg ci wàllu leer ak ci ay njàngat yoo xamante ne ni ay jàngale la ci yonente bi sallallahu alayhi wa dund nañ lu yàgg teewe nañ bërëb yu bari dem nañu ay gàmm yu bari waaye wax dëgg yàlla li ñu am fi amuñu ko fenn ndax Mawlaay Cheikh Sidi El Hadji Mouhamed El Cheikh eh, gàmmoom lépp yàlla yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Mawlaay Cheikhu te fii Medina Cheikh ngay ñëw gàmmu jeexitu burdu ëllëg sa di gannaaw ëllëg sa di gàmmu gannaaw ëllëg sa di wasifa tisbaar di garanti yooyu di ay sirru ci tarixa bi yoo xam ne fii rek la am te fii ngay ñëw ñeenti fan yooyu nga fi def yëpp doo fay benn waxtu doo am benn waxtu booy faat doo am benn laazim bala benn wasifa boo xam ne da koy faat ndax lépp lu ñuy def bu bu bu laazim jotee eh, dañuy dañ koy bàyyi dem laazim bu wasifa jotee dañ koy bàyyi def wasifa bu julli jotee dañ koy bàyyi dem julli ji kon mu nekk loo xam ne activités yi li ñuy bari bari bari ak lu lu lu euh, jaxasoo beeg maanaam xàmmi konte waxtaan yi li muy bari bari bari jaamu yàlla moo jiitu loola ca loola door caa topp. loolu nag fii lañ ko doon amee te tamit sang bi dafa nekk koo xam ne saa yu bis bu nekk saa yoo ñëwee ci moom mu jox la leçon bu bees boo xam ne dafay gën a yokk sa cofeel ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam gën a yokk sa cofeel ak sa taxawaay ci Mawlaay Cheikh Sidi Ahmed Tidiane Chérif. gën laa yokk teewlu ak taxawaay ci sa tarixa li nga xam ne moom nga jokk mu tarixa Mawlaay Cheikh Sidi Ahmed Tidiane sang bey géeju leer gi jëmal xaqiiqa leer gi fesal nguru axat mi dagal xabibana jëmi may sang mi dagal xabibana cheikhu jëmmi may sang gay ngir ju leer gi xaqiqa leer Cheikh Gora de guru axat mi dëggal xabibana ci événement bu njëkk ci gàmmu gi Mawlaaya Seydi Mohamed El Cheikh moy présider séance de wazifa bi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 fi صل وسلم على أهل si Medina Cheikh guddi Mawlaay Cheikh Ahmed Tidiane Chérif mooy événement bu jëkk ci njortalu gàmm gi comme ni ko Mawlaay Seydi Mouhamed El Cheikh jàngalee kenn mu àgg ci yonent bi sallallahu alayhi wa te jaaroo ci xatmiya loolu mooy sababu guddi gi conférence ren bi nag mu ngi aju woon ci naka la Mawlaay Cheikh Ahmed Tidiane Chérif wane maxaama yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Mawlaay Cheikh Tidiane sunu kay jéem a settantal dañu koy àtte rekk ci ñaari taxawaay dañuy wax ni boo ko àttee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 c'est l'essence de la lumière des prophètes xatmiya c'est l'essence de la lumière des élus d'Allah Moolaay Sëriñ Mohamed El Cheikh jàngalewaat dayoo Moolaay Cheikh Ahmed Tidiane Chérif ak ay tolluwaayam ci maxaama xatmiya ak katmiya yu waliyu yi ak yonent yëpp seede salaamaaleykum Sëriñ ban message ngay lancé jeunesse bi par rapport à la tariqa waaw message bu may lancé jeunesse bi par rapport à la tarixa tijaniya mooy comme message bi nga xam ne rek moom laa doon véhiculer léegi Mawlaa Cheikh Ahmad Tijani Chérif mooy guide bi nga xam ni tey jii ci axiru zaman moom mooy le sauveur kon nag li may lancé jeunesse bi mooy ñu fexe ñoom ñëpp am pas-pas jël wér de tarixa tijaniya vivifier le zikr de la salatul fatiha ndax le zikr de la salaatul fatiha moom mooy un viatique pour la rédemption éternelle du cœur macha ah euh, guddi Mawlana Cheikh na comme sang bi li mu ko waxee chaque jour rek mooy ouverture pour dugg si guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam macha allah comme ni mu ko daan defee chaque jour rek bu ñëwee waxtaanul ci Mawlana Cheikhu Tidiane ba xol yëpp sedd ndeysaan waxtaanul ci Mawlana Cheikh sotti ñu lumière yëpp ba ndeysaan instant bi moom dañoo kontaan ba amul sax lu ñuy wax. di gërëm suñu sang bu tedd bi ci waxtaan bu am solo bi nga xam ne indil nañu ko si Mawlana Cheikh si cër yi nga xam te ni macha allah am na ko. yokkaat aussi suñu cofeel rek si toujours ci Maolana Cheikh yokkaat aussi sunu cofeel ci tarixam bi nga xamante ne amuñu lu moom macha allah. ah suñu impression ci sàng bi ñu ñëpp ko gisandoo chaque fois bu ñu ñëwee rek mu wax ñu wan ñu lu bees loo xam ni ñoo ngi koy doog a dégg moo tax suñu ñëw fi duñu neex lex ku ñëw moom lumière di nga ko feesal ndax lumière la ñu soxla te ci sang bi lañ ko mën a amee te ku ñëw dana la jox ba nga doyal macha allah. Mawlaaye Cheikh Tidiane yi mooy buntu buntu bi nga xamante ne. mooy buntu yonent bi sallallahu kenn mënul àgg ci yonent bi sallallahu alayhi te jaaroo ci Mawlaaya Cheikhu Tidiane kenn mënul am accès ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam te jaaroo ci Mawlaaya Cheikhu Tidiane wa anta baabullaahi ayyum ri'in ataahu min ghayrika laa yadxulu boo bëggee fëgg kër yàlla te jaaroo ci Mawlaaya Cheikhu Tidiane mu woon la bi doo gis doo doo gis yàlla doo gis yonent kon nag tabaarakallaahu Mawlaaya Seydi Mouhamed El Cheikh moom dafa xam li muy def lan lu muy def rek dafa am teguwaay parce que Mawlaay Cheikh mooy ki nga xamante ne moo koy guidé ci li muy def kon du juum mënta juum parce que Mawlaay Cheikh moo naan ko defal lii defal lii defal lii xam nga moom rek nga gis ci ñiy gàmm mu jël niw Mawlaay Cheikhu Tidiane yi def ko spécialement muy conférence mu def ko ba pare door a dugg ci gàmm kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo fi nekk ak Cheikhu Tidiane waaw sëñ Babacar def ne euh, euh, xatmul wilayati maktumun sarairuhu law la rasulu la kaana cheikhu tidiane nee na bu dul woon yonent bi rek cheikh lay doon sang bi nag dafa teel a xam loolu parce que mook cheikh dañoo dëkk teel a xam bi mu xam loolu nag moo tax balaa dugg ci yonent bi il faut mu jaar ci cheikh ba yaramam tàng mu door a dugg ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam barkallah asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñuy seetaan ci Waladounyati TV tey nag dañoo ñëwoon di waxtaan nag suñu benn mbokk compagnon Mamadou Diop nekk section cuisine ñu leen di laaj rek ci section cuisine bi ban mission seen mission naka ngeen koy doxalee pour mun a satisfaire mbokk compagnon yi fii ñëw yëpp. Euh, mu mel ni tey jii boo bu fekkente ne danga ay nit dañu daj ci bërëb lii war mooy ñu toppatoo leen dalal leen d'abord ba ñu dal ñu jox leen ñu lekk jox leen ñu naan ngir li nga xam ne moo leen fi indi ci jaamu yàlla li leen fi indi ci mission bi waaye dinañ fi indi gi teewlu xam-xam yu rëy yu màgg yi nga xam ne Imam Al Mahdi mu koy véhiculer partout dans le monde ñu mun koo teewlu ci xel bu dal waaye itam fekk sam ngi lekk ba suur naan ba màndi ci ñam yu sell te set. liggéey bi nag ñun ñoo ngi ñun ñoo ko ci côté waañ bi muy côté euh, wàllu comme féete ci wàllu togg beeg raxas beeg et cetera. ñun mën nañ ne suñu taxawaay ñu ngi nekk si comité d' organisation maanaam bu ñu nee comité d' organisation comme son nom l'indique rek lépp loolu lu jëm si wàllu organisation pour gàmmu 2022 bi nekk loo xamante ne dina jaar yoon si loolu la ñuy taxaw maanaam li si njëkk mooy jéem a taxaw si wàllu lekk bi jéem def tout togg ñam yoo xamante ne euh, macha allah yu normal lay doon mën ko servir gan waa groupe Alam communication sanc nañu ab musée di benn bërëb bu ñuy wane jaar jaari Seydi Mouhamed El Cheikh lu su mel ne ay nataal ay mbind ay xasida ak ay jëfandikuwaay yuy fàttali ndorteelu mission bi. Euh, musée historique bi mu mel ni benn euh, benn baat la boo xam ne ñu ngi koy soogay dégg fii ci biir Médina Cheikh euh, tey jii lan moo leen jox motivation boobu ba ngeen ubbi musée bi tey daal di koy tuddee musée historique Al Mahdi. ah macha allah waaw musée historique Al Mahdi nag premièrement projet alam la alam ñoom ñooy toog rek ah benn bés ñu ñëw am projet. ibbi musée bi musée bi nag ñu ngi koy ibbi ndaxte dafa am yu bëri nga xamante ne xew-xew yu am solo la si euh, mission wu imaamul mahdi al muntazar Mawlaay Seydi Mahamad Cheikh mu am yu bëri bëri nga xamante ne daal xew na fi am na fi léegi nag yooyu noonu premièrement dañ ko bëgg a collecter objet yooyu noonu collecter lépp conserver ko organiser def la de de telle sorte que duñu perte suñu yenn patrimoine yi en même temps aussi les nouveaux adhérents képp ku mënti di ñëw parce que mission bu yaatu na dañuy gis chaque jour à chaque fois dañuy gis à chaque fois des nouveaux adhérents donc les nouveaux adhérents là ñoom suñu ñëwee pour ñu bañ a am benn problème suñ bëggee dab suñ bëggee xamaat beaucoup d'informations concernant euh, la mission de l'imam al Mahdi al Muntazar suñ ñëwee automatiquement si leen mën a orienter wan leen Seydou Mouhamed El Cheikh yi objet yi mu daan utiliser si ginnaaw en résumé daal def le tout daal ba ba résumé à le passé de l'imamul Mahdi al Muntazar exposé ko ba nga xamante ni képp ku ñëw rek mën na fi am beaucoup plus d' nga xam ne dina ko mën a permettre moo xam ne mission bi fan la nekkoon démb ak fan la nekk tey jii macha allah daal. waaw macha allah xam nga maa ngi doon ñaan léegi rek sax di ko wax euh, ñi nekk ci biir ni leen ñi ngi ñaan ñu dem ba chinois seen bopp ñoom mën di ñëw di visiter musée bi ak japonais yeeg ñëpp. ndax musée bi vraiment retracé na histoire boo xam ne histoire bu yàgg la ci xadara bi mais aussi retracé na organisation mystique ci bayit yi nga xam ni jotoon naa ko bind ak yenn bind yi nga xam ne sax bindoon naa ko en français ak surtout kaamil bi nga xam ni bi ma daan def tarbiya moom laa daan jànge alquran wan nañ ma fi ba wan ma kaas gi nga xam ne sax ci lañ ma daan xeelil attaay taamu Medina Cheikh yi ca début ba boobu sàkket la mu nekk musée boo xam ne daal li nekk ci biir moom vraiment lu riche la vraiment lu jar visite te la macha allah ñi nga xam ne ñu ngi fiy ñëw macha allah ca ñaareelu fan wa yemoo ak bësub aljuma taalibe yi ànd ak Seydi Mouhamed El Cheikh julli juma ca zawiya Medina Cheikh allahu akbar allahu akbar alhamdulillah ca ngoonu aljuma ja seydi mohamed el cheikh àndaat ak taalibe yi ci zikrul hadratul juma ca guddi ñaareelu fan wa waa groupe Damirul Kawni présenté benn film bu jàngale histoire Masih Dajjal film bi di jëmmal jàngale yi Seydi Mouhamed El Cheikh def ci dundu da Dajjal balaa muy gane àdduna ba na muy faatoo ca ñaareelu fanu gàmmu gi Seydi Mouhamed El Cheikh jàkkaarloo na ak taskatu xibaar yi ci ay laaj ak tontu ay laaj jëmee ci mbay mi jafe-jafe réew mi wàllum politique ak bitim réew ak lu jëm ci wàllum mission imam al mahdi émergence économique euh, état bu nekk ak vision bu mu ci am mais foog naa ni fii au Sénégal am nañu cadre yoo xam ni ñoom ñëpp ci wàllu nan la ñuy def ba développer réew xam nañ ni agriculture moom dafa ci côté boo xam ni kenn mënu ko bàyyi gannaaw parce que tey boo demee ci àdduna bi réew yi nga xam ni développé nañu yëpp mën nañ ni ci mbay la ñu jaaree ba développé wu kon nag même bu fekkente ni sax bàyyi nañu xel li jëm ci ay pétrole wala lu jëm ci ay gaz mais gis nañ ni daal facteur essentiel bi nga xam ni tey ci la ñu mën a miser wu bàyyi ci xel ba tax mën a développé réew mi euh, mu nekk réew moo xam ni lañ ci bëgg dinañ ko ci am foog naa ni kenn mënul dem saa mbay. ci bésu gàmmu gi Khalifa Massamba Coulibaly ak équipe amal nañ fa émission buñ tuddee tapis rouge tapis rouge di ab émission bu yees buy fësal taalibe yi ràññeeku ci xadara bi ci wàllu way taalif ak tagg yonent bi sallallahu alayhi wa ñu fas yéene tey sargal ay nit yu nga xamante ni yàgg nañ ñoo bégal yàgg nañ ñuy di taggal rasulillahi sallallahu alayhi wasalaam Mawlana Cheikhu Tidiane radiallahu taala anhu ak sunu sang bu tedd bi tey jii ñu fas yéene déroulé tapis rouge pour bégal leen sargal leen ci bis bu tedd bi. ca ñetteelu fan ba yamoo ak bésu gàmmu ca Medina Cheikh Mawlaaye Seydi Mohamed El Cheikh amal conférence bu mucc ayib minuit ba fajar ay jàngale yu bari yu jëm ci yonent bi sallallahu alayhi wa ak ay jikkoom. ci wàllu nubuwaam taxawaayu saxaaba yi ci diine lislaam ay xisa yonent ak nitu yàlla yi ak ay laaya biir yu jullit wara am ci digganteem ak yàlla ak mbokkam waaye yonent bi it ci ay jukkoom mu nekk ku neex a àndal ci ay jukkoom ndax looy cherché boo ñëwee ci moom da ngay fekk ni bu dee qualité yonent bi moo la ko ëppale waaw looy chercher rek boo ñëwee ci moom bu dee qualité dangay ngay yëg ni yonent bi moo la ko ëppale waaw moo tax borom bi ni ko wa innaka la ala xuluqin azim yaa Seydi bi avant ngeen a xam Seydi Mouhamed El Cheikh ñàkkul ni am na dund boo leen doon dund euh, ñu bëggoon a ngeen dikkal ñu ci tuuti ci lan moo nekkoon seen dund avant ngeen a xam Seydi Mouhamed El Cheikh. bon jaar nañ ci ay. par exemple tux voilà ak euh, utiliser loo xamante ni aussi comme genre mun nañ wax euh, drogué drogué wu voilà waaw jaar naa ci. daan naa dund saxaara comme yu mel ni sama bopp ma si def ay njoñ dem ay am na boîte yu nuyu yi nekk fii Saint-Louis comme ay Chaumière Casino Pointe Nord boîte yu bari sax bu ma limee damay juum daan naa ko dund samedi damay soirée ji dimanche ma dem matinée. dund cakaay boobu mais loolu yëpp boobu xamu woon Imaam al Mahdi. mais bon finalement bi ma ko xamee 2012 laa ko arrêté waaw bi ma ko xamee nag mun naa wax euh, ci xame bi ñu xamee moo tax loolu moom ma arrêté mais par la suite bu ma dundee quelque temps ma xam Imaam al Mahdi après ma ne alhamdulilah rabbil alamin rëccu nag regretté li ma doon dund ak li ma daan sama bopp. ma xam ni kon yàlla mi may dimbali ndax ku yàlla dimbalul loolu teg si benn yoon bi teg ci benn yoon mooy wan na la yoonu imaamal Mahdi mooy Seydi Mouhamed ay moom bi nu bi nu koy xamee li ñuy la ñuy soog a yëg sensu dund waaw sensu dund moo tax bu ñuy tudd dund moom dañ koy commencé ci bi ñu xamee Seydi Mouhamed ay Cheikh macha allah. daaw ma julli daaw mu or topp bànneexam léegi ba ma xamee Seydi Mouhamed ay Cheikh ba léegi julli jaamu yàlla jox jox nit cër. loolu ñu xamee taalibi sang bi boo gis ci kaw suuf am na cër ci doomu aadama. respecté moom julli bi parce que mun naa julli weer bàyyi waaw bàyyi vraiment loolu moom dama ko doon def walla ma julli bon géeye moom dama doon faral di tëdd te du ko du du ma ko julli su xëyee aussi damay bàyyi noonu rek du du ma ko walla ma xëy di julli suba kese du du ma julli yeneen waxtu yi donc fii Ndar laa commencé bi ma ko xamee laa commencé di julli normal. xam nga boo nekkee jeune boo xamante ni daawoo jóg fajar wala boo mu doonoon lu jafe si yow. mais pour le moment moom alhamdulilah parce que dem nañ ba man ba ba xam ne ñun jamono ji mën nañ jógal suñu bopp fajar. mais avec Seydi Mouhamed El Cheikh nag yow sa jaamu yàlla da koy gën a jox àq parce que da ngay xam ne non seulement yàlla daf la bind pour nga jaamu ko mais noo seulement dangay xam ne yow loolu lu la war la jaamu yàlla boobu noonu lu la war la yow sa jëmm boobu. mu wax ni yàlla bindul nit ak jinne pour lenn lu dul ñu jaamu ko te ñun loolu réeroon ñu te bu ñu xamee Seydi Mouhamed El Cheikh la ñu xam ne lii moo tax yàlla binduñu mu orienté ñu ci loolu te ñu ñu ñu ñu tegu ci cadre boobu itam depuis ñu ko xam ba tey. te jaamu yàlla du da ngay xaar ba nekk mag étant jeune nii la ko yàlla bëggee nii la ko yàlla bëggee nga nekk jeune di jaamu yàlla dañuy yeewu fajar wasifa suba wasifa ngoon te loolu daawuñu ko doon def mais buñ ko doon def sax. daaw ñu ko jox àq mën nañu xëy lëndi wasifa balaa ñëw wasifa waat boo metul weer bu dee la tey euh, euh, boo gisee ñuy ñëw fii ni euh, dañoo gis lu lu lu lu dëgg xam nga fu fu dëgg nekkul moom dara nekku fa mais Seydi Mouhamed El Cheikh moom discours am yëpp génnul yàlla génnul yeneent bi génnul Seexu Tijaani Chérif wasifa tisbaar mooy ndarkepp ñetteelu fanu gàmmu ca Medina Cheikh ca ëllëgu gàmmu gi Seydi Mouhamed El Cheikh ànd ak taalibe yi lal malaan wasifa gannaaw tisbaar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 على عين رحمة ربانية والياقوتة متحققة الغائطة بمركز الفهم والمعاني والنور الأكوان متكونة عدمي ساق بالحق رباني gannaaw wasifa tisbaar bi Seydi Mouhamed El Cheikh amal waxtaan ak taalibe yi ci dayoo ak maxaama Mawlaay Cheikh Ahmed Tidiane Chérif man ki may wax. nee na moom ki muy wax mooy ka nga xam ni mooy ka nga xam ni. su accès allahul hulku day dox di dem day dox di dem. ki may wax ki muy wax mooy ki nga xam ne mooy ki nga xam ne ginnaaw yonent bi ginnaaw yonent bi moo fi sës ki may wax ki muy wax mooy xat mi mooy xat mi bi mooy kat mi bi ki muy wax moo yore xutbatul uzna yor xutbatul kasam yore leer yi yore xaqiqa yi di defar ruux yi di leen gide ba dugal leen aljanna ah, nee na moom cheikh boobu lay wax te ñi ma tamit boobu boobu la leen sant ñu topp ngeen topp El Cheikh joxaat rendez-vous taalibe yi ci région bu Casamance le 24 décembre. la ilaha illallah allahu nuru la ilaha